waaw sitting bi ñu amaloon ñaari fan ci weeru mai bi ñu weesu la télédiffusion du Sénégal moo ngay wëy di dund ci guddi gu bërset jotagul agent yi nga xam ne ñooy liggéey foofee ca TDS ñoo ngay wëy di ñaawlu yorin bi nga xam ni nouvelle directrice bi yore na ko bile la agence couloir di waxtaan amatul jàmm booy jóge sa kër pour dem liggéey normalement da nga war a am une gaieté de cœur da war a bëgg pour dem liggéey parce que le travail le travail c'est d'abord un épanouissement mais personne n'est épanoui à mu mel ni bile directrice nu ko ne la yore bile agence ba tax liggéeykatu TDS yi ñoo ngay wéy di naan ñi fare ak décision yu muy jël la ñoo ci gën a neexle tey boo ànd ak nit ki am nga jàmm boo àndul ak moom parce que contradiction amatu fa tey boo fa boo àndul ak moom am nga problème soit da ngay sa post soit ñu reléguer la au second plan ba tey ci loolu Pape Malick seek moom moo ngi ñaawlu bu baax xaalis bi nga xam ni RTS nañ koy versé te waroon ko versé fii ci TDS. waaw li ci gën a yéeme mooy xaalis bi nga xam ne waa TDS ñoom lañ ko waroon na versé waa RTS lañ koy versé te loolu tamit du instruction njiitu réew mi instruction yi dafa leer dane xaalis bi nga xam ne dañ ko war a versé waa TDS lañ ko war a jox. fëskee ne wu ñu tegg seen tànk benn yoon ñoom agent yi ñoo ngi alerté. nous allons. waaw ñun moom suñu plan d'action moom daanu ko wéyal te dañuy décréter alxames ak ajuma takk ay brassards yu xonk fépp fu nga xam ne ay centre région la ci TDS ak ci Ndakaaru ak ci ñaar fukki centre ak ñeent tuutal ay nit ay acharnement jël nit di ko tekk ci kaw nit waaye tamit indi fa li nga xam ni moo di xiiro ak ŋaayoo ci diggante bi la agent ak ay partenaire am dagg tamit lii di prime yi nga xam ni ñoom lañ doon jox ñii di agent yi ak seen carburant lii lee moo nekk li agent yi liggéey foofee ca TDS di ñaawlu ginnaaw bi Nafissatou Diouf ñëwee daal di nekk directrice agent yi ñoo ngi woo président de la république mu daal di addu ci mbir mi balaa lii raam di yegg ci ñag bi